ma bëgg ngeen xam ne tey jii ñi doon ñi bañoon démb suñu nangoo tey seen pexe jubul tey jii ñi daw fekki Pastef ñoom ñëpp ay defkatu njombe dañuy wut couverture te moom si boppam Ousmane Sonko waxoon na ne soxlawu leen mais ma bëgg rek ngeen xam ne am na suma benn mbokk ndar-ndar bi ma ko yëgee ci biir kaso bi su ma gaa yi ma tëddaloon ñu ne ma mais loo xalaat ci mbir mi ma ne ma ne leen aw ma ci xalaat moom rek moo xamutoon ne dem na moom rek mais ñun ñëpp xamoon nañ ne dem na moom si boppam turu sàmm sa kàddu moom si boppam moo ko génne moom bi ñuy wax parce que Barthélemy Diaz moo ne vaar mm-hmm. valeur alternative républicaine ñu ne déedéet dindi républicain def ci responsable après ñu ne non non il faut ñu am tur boo xam ne day wolofal comme VAR ku dut sàmm kàddoom la ñuy wax waxi sàmm sa kàddu moom si boppam suma mbokk ndar-ndar boobu mu ne nañ ko tuddee sàmm sa kàddu parce que ñii fi nekk kat mësuñoo sàmmanteeg seen kàddu tey jii la ma waxoon lépp génn na ci waaye may bëgg rek ngeen xam ne moom mii fi nekk moo waxoon lii